susi, si dinañ wax mbour 3 wax mbour 4 wax gox yu bari wax poche yi euh, wax zag bi wax euh, capong wax jasab dégg euh, wax balabe 2 wax barab yu bari yu nga xam ne ci biir dëkk bi fu ci nekk coow coowa nga fa mais looloo waral bi ñuy doog a ñi nga xam ne dinañuy conseil de ville nga xamné ñepp fa ne conseil de ville ah représentant état bi day teew RPM euh, day teew maire commune yi dañuy teew wa ville teew donc waa Thiès a fa daje ak te ñëpp am droit ñëw seetaan am na ci ben sama ordinateur la tek génne code bi wax len naka la yoon bi waxé ne li ni lañuy ñuy jàngee.

lépp lu maire de ville di def te mu concerné benn pàcc wala benn commune ba mu mat daf caa war wax maire commune bi da ko cee war a associé baat boobu la utiliser ah da ko cee war a boole ci deuxième alinéa bi mu ni maire commune ba lépp lu ko maire ville wax ci wàllu woowu da koo war a wax conseil municipal am maanaam wax ko ko pour moom mu teg ñetteelu alinéa bi. nek maire commune boobu même ci cadre compétence am lepp lu mu war def dako wara yegal maire ville moy moy lolu moy disolé kon kay bu fekkee dañoo wara liggé mu jëm ci souf ci même buñu waxé maire ville moy jité liggé bi mais mënu du def mom do té dafa mënut a yem ci collectivité locale yi kese parce que les services de l'État sont concernés yow li nga man moy jité commission bi commission bi ay ñëpp a bok ñi ci wara bok bokk ñëpp dañ ci bok mais benn commission mais Boba, nit ñi dañ ne non non non comme yi ñoo parce que arrêté wu préfet bi doon def dévolution bi mo leen ko jox mais arrêté préfet mën naa nekk ci kaw loi décret président de la république n'est ci kaw loi arrêté préfet di nek ci kaw loi dafa mën né yow naka nga mën joggé tay tey marché central bi du ville moko ko lan moko ko jox euh, commune nord du arrêté préfet yow nga nangu arrêté préfet jox la nga jël. lu waa xañ la nga bañ loolu mënul ne maanaam coow li yépp lii la du leneen alors loi bi moo ne nii la war a deme comme nii la war a demee nag léegi IGE bi mu fi ñëwee dañu rencontré maire yépp def fi gëstu temps bu yàgg génne seen pré rapport pré rapport bi awma droit dugg ci yaa ngi dégg parce que pré rapport tant rapport bi génnul xëy na léegi mu génn maanaam amuloo droit fësal mais ñoom leeral nañu lu bari mais préfet bi mu gisee mu am yu tàmbali ci noor ak yu tàmbali feneen moo bind ki yore service urbanisme fii ci biir dëkk bi ne ko maa ngi lay xamal ni lii ak lii bu ci dugg ndax nii la war a demee ndax ville moo war a def lii ak lii te te bi loolu la wax nag te li loi bi wax tant que dañul mooy am comme loi bi loolu la wax nañu waajal suñu bopp ci loolu maintenant comme dañu war suñu te ñun ñoo luñ ci war man bala ma cee dugg dama koy leeral loolu moo tax ma wax ni dañuy def audit du foncier audit képp sax dañ lay dural ci dara di la ci dara yow yaa ëpp intérêt ci audit boobu am parce que audit baat bi dañ ko ñaawal te ñaawul audit leeral la maanaam audit bi fi waa IGE ñëwee fii man maa lañ njëkk a sant ndax ngay tàmbali gestion nit ñi ñëw di saytu buñ te jógee danañ la ne lii dee leen ko doxale nii dee leen ko doxale nee dee parce que kenn judduwul nekk maire donc dina am yoo xam ne nga koy xalaate nii da noonu bu boobaa ñu teg la ci aw yoon kon audit bii nuy wax ci foncier bi it maanaam képp koo xam ne sax dañ la ci daan takkal te fekk taqaloo fa ngay jóge sa der set

ci biir joxewu suuf si nag dafa am lu ñuy bàyyi xel la première chose mooy waa Thiès ñoo moom suuf si maire moomu ko préfet moomu ko gouverneur moomu ko président de la république moomu ko ministre moomu ko premier ministre moomu amul conseillers yi moomuñu ko keneen moomu ko waa Thiès ñoo ko moom muy bu ma nee waa Thiès ko moom mooy mooy ñi ñi fi newoon démb ñi fi ne tey ak ñi ñëw ëllëg ah, kon luñ ciy def dañuy bàyyi xel loolu nit ñi ñooy demandé ay nit dañuy déposé fii ay demande ñii di wut kër bu ñu dëkkee waa forme UDIC wax nañ fi léegi ne bëgg nañu am barab yu ñuy dëkkee am nañu sañ-sañu bëgg keneen conseil yi aussi waa Thiès lañu am nañ sañ-sañu bëgg même maire yi yi dul man parce que man bëgguma léegi ñi nga xamante ne ay maire lañ ci dëkk bi am nañu sañ-sañu bind ne dañoo bëgg parce que waa Thiès lañu gouverneur bu ko neexee mu ni bëgg naa. keneen bu ko neexee ne bëgg naa ñépp am sañ-sañu ne bëgg naa bu boobaa kenn ko ne bind ñu liggéey def ay critères seet kër yi ku ci war a am ñu jaare ko ci yoon ñi nga xam ne pour bay la ñu jaare ko ci yoon ñi nga xamante ne dañoo bëgg ñëw pour liggéeyal dëkk bi ndax doomi dëkk bi mën a am fu ñu liggéeyee parce que il faut ñu jël ay suuf seet ay nit yu fi bëgg tabax ay usine wala leneen bërëbu liggéeyukaay ñu jox leen ci tamit ngir doomu Thiès yi mën a am ku di am ku ñu suturloo di am salaire di mën a toppatoo seen waa kër parce que ñëpp mën ñoo liggéeyee maire yi loolu lu leer la bu ko defee bërëbu liggéeyukaay yooyu su amee ñooñu forcément dinañ am tamit ci suuf si mais moomuñu ko dañ leen koo dénk dañ leen ko abal ci ab diir ci ay sart yu leer nañ yoo xamante dañuy liggéeyal ensuite ñu cay jëlee loo xamante ni ci wàllu taxe ki impôt dana yokk tamit capacité wu dëkk bi am ay ressources yu koy développé suuf bi noonu la war a tëddee warul tëddee na kon damaa bëgg ngeen dalal seen xel ci wàllu tant que yàlla mi ñuy may dund fekke ak tal te cër bi nekk suñu loxo léppay leer te bu boobaa it buñ defee ba pare liste mooy am parce que boobu moom du affaire confidentielle liste la ñuy def affiché ko fii lire ko fii s'il le ci audience publique ne suuf bi ñii la ñu jox pour habitation te ku ci nekk lii lañ la jox ñii lañu jox pour bay ñii la ñu jox ñu nekk ay ay ay kuréel ay entreprise ak ay industrie ak yu ni mel pour ñu liggéeyal dëkk bu boobaa ku nekk mën a xoolal sa bopp ku nekk am droit contesté ku bëgg a yóbbu tribunal yóbbu tribunal ku bëgg a yóbbu feneen nga yóbbu feneen boo amee dëgg nga nga ñu jox la dëgg defe naa ne noonu la ko suñu borom tërëlee noonu la ko fas